benn famille bu ñuy wax famille Peretz nga xam ne ay israélien lañu doom ji tudd Idan Peretz baay ji tudd Gabi Peretz famille boobu nee nañu am nañu benn contrat ak état Sénégal boo xam ne 300 millions d'euros lañ ci xamagum 300 millions d'euros loolu soo koy xayma ci CFA na 196 milliards de francs CFA kooku ko la de dafa dem lebi Waye comme néna Sénégal dañoo am problème trésorerie Nous ñoñu garantir ñoo jox caution garantie pour que ñu puissions ko lébal bu ni tollu waye ba. lebu ko pour tabax ay hôpitaux de te Sénégal yaa ngi bëgg a dee lebu ko pour tabax ay ay ay ay école lebu ko pour régler problème mu ndox mi wala problème mu mbëndu Sénégal lebu ko pour defar ay tali yu sénégalais yi mën a daw lebu ko pour defar mbayu Sénégal gi nga xam ne tey suuxee suuxee na ba jiw ju baax sax suñu mbaykat yi mënatuñu mënatuñu koo am engrais mënuñu koo am lebu ko. pour défendre au Sénégal est pour politique industrielle pour que nous puissions faire développement pour politique qui dina yombal ndaw ñi ñu la ko pour dem jënd ay ngannaay yu muy ci askanu Sénégal xaalis bi mi ngi pour dem jënd ay ngannaay ndax la ci boo wax bu ngeen xoolee léegi gendarmerie bu dara xewee ak police li ñuy génne jamono ab Ablaye Wade dañ doon wax dragon ñu naan benn dragon la wala ñaar léegi boo demee ba fëngali mi sax di nga fa fekk juróom wala fukki dragon yu ñu fa gaare xaalis bu ñu lépp pour jënd matériel boo xam ne ci ci waaj waajtaayu ñetteelu candidature nu ñuy def ba dal ci kaw askanu Sénégal damm askanu Sénégal rey askanu Sénégal gaañ askanu Sénégal ci loolu la lebee ci turu senegal Sénégal 196 milliards yoo xam ne ñun ak suñuy setaat dañu koy fay lu doy waar la te kenn xamul lan moo ne ci suuf dëgg dëgg dëgg